ngi fii ci ville ci Petersen mi ngi sama ginnaaw gis nga lu ko ay candidat mi ngi ni euh, waa mairie Plateau nag ñoom ñoo doon def opération déguerpissement. bi daal nu mu demee mairie Alioune Ndoye moo jël ay woyu ñoo xam ne xëyuñ wàccuñ toog si mbedd yi naan ataaya nañ fa nekkee ñëw ci mbedd mi nag ñu wàcc leen ci mbedd mi ñu jor ay jaas yi ay pompe à lu ne fekk marché ambulant yi laluñ laluñ dara ñëw fekk benn booy taxaw te ay quelques moyens ñu ñëw xëcc ko wéqu ko loolu moo andi problème bi ba pare ñoom ñu génnee ay ak ay paaga. yor pompe à gaz ne yor pompe à gaz. xam nga tey euh, man sama wàllu bopp su may jugé wala may wax benn affaire dama ciy teg sam bët boo demee ba ne nit dafa yor pompe à gaz wala dara mais attends désignel nit ki ñëwal ci agent yi nga ne kii moo yor pompe à gaz ñun loolu may nañ leen ko parce que mënoo tam ñëw ci biir échauffourée ci biir xeex dara am. nga jël profito djuk rek ne pompe à gaz mo dóor nañ ñu pompe à gaz kan moko dor précisément buñ ko doré yow war nga ko mën xam qu'est-ce qui me dit que ñom sen bop dóoruñu ko ba paré jiiñ ñu ko du deug amna lo xamantene ni il suffit nga déglu ko parce que way kat bi dafa ne lepp lepp lepp luñ la wax lu melni cinéma dégg dégg war a jangal ba ci bir du lepp luñ la luñ la wax nga gëm du lepp luñ la wax nga gëm nit il faut am nga capacité d'analyse xol le pour et le contre entre kii ñëw di la wax tranquillement jugal ak ki ñuy jël bagage di dem kan moo ci am yéene dóor génne pompe à gaz dafa am loo xam ne dafa yenu maanaa quoi. nee na ñoom préparé nañ lépp yaa ngi dégg loolu dëgg la wala wala wala nu mu demee noonu. est-ce que joxoon na leen waxuma benn booy naan benn benn waay ñëw naan yéen a fal Ousmane Sonko néeg nii yéen a fal Ousmane Sonko dégg nga Sonko moo ñu yónni di di jaxase askan bi loolu teguñ ko fenn yaa ngi dégg ñoom mënuñu tax ñu bàyyi Ousmane Sonko mais ñoom ay assassin leen Alioune Ndoye ay assassin la jël teg leen ci mbedd mi ñii bëgg a rey nit ñi yor jaasi loolu fu ko teg. waaye nag Alioune Ndoye daf ñoo mel ndax fii Sonko da ko fee gagné fii da ko fee gagné 80 pour cent ñun ci centre lañ nekkoon ñun ñoo siège loon Sonko mais ànd ak Sonko du crime ñun Sonko lañu àndal weddi wuñu lool mais Alioune Ndoye daf ñu ñëw yëkkatee ñun ñu am ay place peut-être seen 1400 place sa Alioune Ndoye war ñu ko jot bañ ñu koo jox xam nañ nag Sonko yëgu ko moo tax ñu koy yëglu ñu ko koy expliqué PDS am na 1400 places am na 1400 place ñun dañoo bëgg Sonko wax Aliou Ndoye mu jox ñu ko ñun ñu leneen xeexuñu xuloowuñ waa mairie bi nag ñu ñëw woo ci xeexu xuloo mën nañ ko man jigéen laa mais mën naa ko ñun ragaluñu dara ba xeex jotee dañoo xeexal Sonko fu mu woote dañuy dem mais nag lii Aliou Ndoye bëgg ñoo teg bu ñu ko tegee dañ koy tegu na dañ koy nangu. mais dañ koy ñaan moom premier ministre mu jàpp lañ su lii ñun ay ambulant lañu war nañ wàcc tali wàcc nañ tali bi. kenn lalu ci tali bi ñun ñëpp wàcc nañ tali bi mais nañu dimbali ci Alioune Ndoye Alioune Ndoye mi ngi ñuy fitnaal. Alioune day saboté Alioune Ndoye dëkkee nii du wëy ñun ay sens lañ de lii duñ wax ak kenn ku ñu wax mooy ndeyum réew ji Sonko ak Jomaay na fàttali ay paa faluñ ko ay mee faluñ ko ay sens ñoo ko fal ay sens ñoo ko fal réew mi nag bu doo bu bëggee li mu nekk nii jóge ci jamonoy Macky Sall yi ñu wax naan ay cinquante personnes amuñu xëy mille personnes amuñu xëy jamono yi ñu toll mille personnes amuñu xëy kon yow nga ne sens da nga ne wutalum xëy di nga fa lii di nga fa jëlee la jëlewu fi dafa gën a yokk xar mi karaw réew mi comme dafa mel ne doonu réew mi mi fi Macky Sall bàyyi woon comme réew moo xam dañ ko copier réew mi baaxul tey baaxul suba ndax tey ñoom dañuy ñëw ne lan lay day jël say bagage force yow di nga gis koo xam ne ponkal magum jëm yorub xaalis yorub bagage am teg nga ne ko dama koy jël ngay jël nga ko dama lay saaga wala dama lay dóor te yow civil nga may civil ay li nekk seen ginnaaw nii si de recasement la yaa ngi dégg que marchands ambulants yi ils ont été avertis yaa ngi dégg suite à cela ñun date bi dafa jot délai bi jot ñu ñëw def suñu liggéey comme il le faut dañu occuper euh, voie publique publique bi anarchiquement bi ñu ñëwé amul xulo, amul xex, amul histoire yaa ngi dégg def nañ ko ci dans la tranquillité ah hein? ñu bagage kenn yaa ngi dégg ce qui euh, li ci li ci euh, doy war dans tout ça c'est le fait que ñu jël affaire bi yobbu ko ci ampleur bu mu parce que yow vous n'êtes pas sans savoir que ici c'est une ville c'est la capitale et que tu as c'est la libre circulation si vraiment la circulation est bloquée si le imaginez imaginez fille dans le quartier où je vous parle je parle en connaissance de cause il y a une dame qui était malade ici fièvre, nous avons évacuer on avait du mal à l'évacuer les sapeurs-pompiers n'arrivaient pas à accéder parce que des gars ils ont dañuy ñëw ci lo xamanteni ñom fañu fa dëkk fa né bo boo demee kenn du jël sa buntu kër teg du dëgg mais nit tamit boko jëlé dara dang koy jox solution le maire euh, Alioune Ndoye il a su vraiment faire un investissement investissement de haute facture bu ngeen xolé fi ci ginnaaw def nañ fi site de recasement yaa ngi voter un budget défar ki te liggéey bi ci bir machallah du dëgg. kon nag gars yi li ma leen di ñaan mooy euh, il faut ñu def benn sacrifice xam ne fii mbedd la xam ne fii yoon la xam ne fii dañ fi am ay dëkkandoo yaa ngi dégg loolu daal laa amoon lu ma ciy wax. len lañ ci mën a xam bu fekkee ne Sonko la mu wax ñu bu fekkee ne président bi la mu wax ñu lu mu ci mën a doon ñu xam ci kan la ci. Ndoye mënut jël ba pare di ànd ak mairie ba pare di ànd ak ay policiers di ci boole. policiers yi état moo ko jox. ministre de l'intérieur ñoo leen ko jox bu fekkee ne ñoom li leen ñu waxoon ba pare wëlbati ko bëgg ñoo yëkkati fi ñu ami jabar ami doom ami lépp te màggal gaa ngi nii di ñëw. mais est-ce ñu territoire ko a ko gisal seen bi jël ko territoire baa ngi nii te yàgg nañ fee lal ay at te mosu ñoo fee dégg accident am na fi wala dara am na fi fekkee ne Sonko la mu dimbali ñu ndax ñu ñoo ko faloon barki dem ay tiset 10 000 jënd nañ ko ay bandeau lu ne jënd nañ ko def nañ lu ne dañ nañ ci lu ne ñàkk nañ ci suñuy bagage lu ne dañ nañ ko kon na ñu dimbali bu fekkee ne mën na cee atu mu wax ci ndax ñun bëggu ñoo xeex man li ma metti mooy Ousmane Sonko fi ñu ko doon xaare du fii yaa ngi dégg parce que ñun ay néew ju doole lañ te ñun ñoo ko xeexal ñoo ko defal lépp ñuy bakkan dem nañ ci pour pour moom pour moom bakkanam sowee suñu deret tuuru na ci pour moom pour moom mu nekk si jàmm yaa ngi dégg lañ ko doon xaare nag du lii yaa ngi dégg réew mi boo dee xool ñi néew doole ñoo fi ëpp fuuf xam nga moom mi ngi mi ngi nekk ci mi ngi nekk si wàllu wàllu wàllum euh, ay ay ay impôt loolu rek waroon na cee mën a taxaw dans six mois yaa ngi dégg ñun ñi nga xam ne bi ne ay néew doole lañ àll ba dara amu fa lépp a ngi bir biir Dakar moo tax ñun ñëpp ñu dajee foofu ñëw fii même Ousmane Sonko daa dawee fa mu dëkk ñëw fii yaa ñun ñëpp ñu daje fii xam nga kon mom waroon naa am yërmande lii bu fekkente ne Alioune Ndoye la yaa ngi dégg moom mu mu taxaw ak Alioune Ndoye wax ko lu leer nañ parce que man fii man vingt ans laa fi def. waaw problème bi bi xewal rek marché ñun après avant tabaski bi suñu maire déclaré dañuy marché bi ku am sa bagage jël ko mais lii nii ñu taxaw nii jàkkaarloog moom muy marché bi suñ maire Alioune Ndoye moo ñu ko liggéeyal pour marchand ambulant yi nekkoon fii Alkaïda moo tax bi ñu waxee loolu boole wuñ si wax ñu yëkkati suñuy bagage denc xam nga di wut mus par ndànk-ndànk mën daw beew place bi daf ñu recensé woon depuis 2019 ah la ñu recensé woon ni ñu léegi da ngeen di génn toog si mbedd mi bañ defar place yi ba pare ñu ubbi place ngeen dugg ñu ko loolu génn rek ubbil ñu place ñu waaw parce que moom ginnaaw defal nañu lii ñun jaaraamal nañ ko parce que am na benn marché bu mu ñu woon ni présenté ñu koy gis xel di dal nañu ko ubbi rek bu ñu ko ubbi ñu dugg si biir ñun moo nu gënal kaw tali bi